ñu eh, eh, leen di sant bu baax di leen gërëm ci topp ngeen topp ci chaîne bi di jégalu démb ci samedi bi li tax indiwuñ vidéo eh, ay ngant yi ñu daboon moo tax di bu baax ñi nga ngi doon xaar seen kon ñu lay ñaan yow mi nga xam ne yaa ñuy seetaan te abonné goo nga bës abonné fiñ bës s'abonné rek du la jural dara boo rek abonné nga niki tamit ñetti nga jël bi ci kaw nga xam ne vidéo bu ñu defati rek da nga xam ne dugal nañ vidéo bu bees di wax na tamit euh, suñu yeneen chaîne yi bii di leeral plus TV ñu lay ñaan nga abonné ci ndax chaîne boo xam ne la dana indi yu am solo ci wàllu jàngale ci dundeenu doomu aadama ak yu ni demee ñu ñoo tamit suñu chaîne YouTube bii di Firi Guent TV nga xam ne Firi Guent kese lañ fay def ci ay thème nga xam ne gént boo gént rek mën nga bind gént sàngam euh, euh, rek nga gis ko foofu incha allah ñu la ko kon bu ko defee rek kon ñu wax ne kon képp koo xam ne bëgg nga ñu jàllale la sa gént aussi euh, euh, mille francs nga yónnee par wala par orange money euh, gannaaw boo ñu yónnee vocal whatsapp wala nga ñu woo ñu téléphone bu fekkee ne da ngaa bëgg ñu firi la ko direct ci téléphone bi 2000 niki noonu tamit bu la neexee nga def abonnement weer bi yëpp fekkee da ngay faral di gént lu bëri nga abonné 5000 ci mois bi nga xam ne saa boo gént rek géntee dañ la koy firil directement ci whatsapp bi incha allah bu ko defee kon euh, ñu commencé ci gént yi fi indi tey ki neen dafa gént gis doomam bu jigéen bu ndaw bi ak bu mu taxawa ak moom mu seen ku mag di jéggi di ñëw ma nga mel ku màndi nee ma nga sax màndi nee na euh, ci biir mandite googu ma ngay def comme mandi geste yi ñi faral di def nee ma nga nekk di euh, di euh, maanaam di tudd turu ki ko tooñ di ko saag mel ni dafa am jëmm ju ko tooñ moom muy tudd turam di ko saag ci jamono boobu moom ñu ngi mànd ñu ngi tamit ci mu daal di koy bokk daal di koy boot waaye nag nekkul boot bu normal daf ko waral guufaat daf ci ginnaaw daal di koy yóbbu tey xale bu ndaw bi ci loxo nee na ba mu demee ba ci kër ga mu fekk fa mel ni kër gi dafa am xew nee na ma nga fa gis ñoo xam ne xam nañ ko ñu ngi koy xool mu daal di changé fa mu waroon aw aw ci beneen bunt nee na nag mu muy naxante xale bi ngir sang ko mooy ki màndi muy laaj loolu mu firi waaw gis sa doom bu ak sa doom bu say doomu jigéen ci gént baax na ni ki noonu gis sa doom bu mu mandi kooku moom baaxul nekk ci ay caaxaan la ak yoo xam ne amul njëriñ nga xam ne moom dana ci nekk mën na koo yàqal lu bari ci àddunaam euh, mën na firi tamit ñàkk gëm boppam wala yu mel noonu wala influence boo xam ne ñu muy ànd ak danañ ko am ci moom kooku dana firi lu ni mel euh, gént màndi aussi dana firi ka nga gént gis mu màndi mooy faalewul lu bari ci àddunaam ak yu mel noonu euh, nga koy jàppale nag mooy ci ay ñaan ak ci ay ay ay orientation mun na changer melokaan boobu mu mel ak sa sa gént loolu lay firi gént gis xewit ci gént baax na kooku yiw la ak barke buy wàcc ci foofa xew wi am euh, ak kooku loolu lay firi keneen dafa gént dugg ci oto biis nee nag waaye mënut a toog mel ni biis bi dafa fees nee na nag taxawaay bi ngi metti ci moom mu mel ni kuy miir di wëndeelu nee na nag mi ngi ragal a daanu ba am fu mu tëyeen na mag naan ay bu kenn jógoon ba ma toog nee na mu ngi tey benn nen naan nen bii de bu ma ko tëjoon ba diwoo ko mu faj li may metti nee na ci loolu am ku jóg rek mu profitoo toog nee na ba mu toogee rek nen bi daal di toj waaye faalewul nen bi toj moom ma ngay kontaan ci toog gi mu toog muy laaj loolu lu muy firi ni ki noonu kon gént nekk ci oto de baax na oto bu mu mën di doon nag rawatina transport nga xam ne li fay daje dafa bari kooku xéewal ak teraanga àdduna goo xam ne dana ànd ak coono mooy taxawaay boobu nga taxaw di miir di wëndeel ndax miir ci gént kooku baaxul nekk ci ay jafe-jafe la euh, wala dund boo xam ne daal amul istiqraar amul stabilité niki noonu tamit euh, yor nen ci gént baax na nen baax na ci gént bu fekkee du nen bu nëb euh, bu tojee baax na hakaza kon nen bu toj ci gént baax na nga nga taxaw mu yàgg nga toog mooy jafe-jafe yooyu da ci gént dugg ci ay teraanga keneen dafa gént gis mu ñëw di ko seesi ca dëkk ba mu nekk bitim réew la nekk ba mu ñëwee nag mu faat fa génn àdduna nee na muy jooy nag naan lii fu ma koy waxee euh, di xool ba xam est-ce que léegi dëgg wala lu dëgg mënu ko woon gëm muy laaj loolu lu muy firi Euh, sa papa sa euh, papa nga gént mu seet si la fa nga nekk baax na kooku ñaan la goo xam ne mu ngi jógee ci moom di la fekk si fa nga nekk euh, ay wala boog bu fekkee ñaan gi amul maanaam war ngaa sàkku ay ñaanam mu lay fekk mën nga ko war loo xam ne dana la ñaanal ngir ñaan yi di la fekk si mu génn àdduna nag mooy fanu gudd woo xam ne dana ko am nga gént nit génn àdduna defoon nañ ci vidéo ci suñu chaîne YouTube Firi Guent TV mooy kooku dana gudd fan mën na koo fii mën naa firi tamit na bu fekkee dafa feebaroon nga gént mu génn àdduna mooy dana wér ca feebar ba bu fekkee dafa tukki woon nga gént mu génn àdduna mooy dana ñibbisi xëkka sa sa gént loolu lay firi gént di jooy nag kooku mbégte lay firi keneen dafa gént gis sa euh, ñu ne daal fii dëjë fi xew te jëkkëram moo génn àdduna nee na ñuy togg ay togg yu bëri yoo xam ne togg yu bëri di defar ay ñam nee na ma ngay dem ci ñi nga xam ne ñooy togg ñam yi nee na daal rendi nañ ginaar ñu naan euh, maanaam muy xool ginaar lañu war a rendi wala nag ma ngay waxtaan ak ñooy togg muy laaj loolu muy firi gént muy dëjal sa jëkkër da baax na kooku euh, mbégte muy ñëw la kooku gudd fan la goo xam ne dana ko am wala wërsëg goo xam ne yi ñaar da ngeen ko bokk da ngeen ko séddoo incha allah niki noonu niñ ko waxee ci ku génn àdduna nga gént ko bu fekkee la feebar dana wér bu fekkee dafa nekk ci ay jafe-jafe mën na cee génn bu fekkee dafa tukki woon mooy dana ñibbisi ay lekk yu bari ci gént ay xéewal ak ay teraanga baax na niki noonu tamit ay togg ci gént baax na fa aajo ju faju la rek sa gént loolu lay firi keneen dafa gént euh, nee na wu jëm naan ko ndax yaa ngi ci euh, processus de divorce bi di ko ko wax ci anglais mu ne ko mu euh, di ko laaj loolu kooku euh, maanaam gént ñu lay wax loolu nag moom baaxul sa wujju di la ko wax baaxul gént gis sa wujju bu fekkee wujju woo xam ne seen diggante demeewul noonu la kooku baaxul ñàkk juboo ak sa borom kër la walla jafe-jafe yoo xam ne da ko am ci sa ak sa boroom kër rawatina nag mën naa la ndax yaa ngi ci processus euh, euh, de divorce kooku baaxul ci yow ak sa diggante ak sa jëkkër daal ñagas ñagas mën na cee am. ki neen dafa gént gis ay nit ñu siiw nee na euh, ñoo xam ne dañuy joué ci ab série bu ñuy wax les quatre fantastiques euh, nee na mu gis leen ñoom ñeent ñooñu kenn ki nekk ci benn étage bu kawee kawee kawe nee na étage bi di lakk nag euh, daal di mu daal di daanu mel ni kuy lakk waaye façon lakkin ba muy lakk mel ni safara wi dafa ànd ak ndox mu rafet nee na ma ngay yéem rafetaayu safara wi nee na nag ñett ñi ci des ñëw di ko xeetali kenn kay njëkk ñëw far lakkaale keneen ki ñëw lakkaale bañ jeex ñoom ca lakk gi nee na moom teewul mu nga continuer di yéeg tàkk-tàkk bi kooku de baaxul mooy danger boo xam ne ñoom ñeent ñëpp ñu ngi ci waaw gént gis ñi ay nit ñuy lakk ku bëgg a jàppale sa moroom lakkaal kooku baaxul ay danger la yoo xam ne ñoom ñi ngi ci wala yoon woo xam ne daal aw ci te yoonu alkande la baaxul euh, euh, bu dee ci nit ñu siiw ki neen dafa gént gis euh, tëdd ci lalu hôpital fekk dafa entré hôpital ci lu yàggul mooy waaye mu liggéey ko ci génn fa mu tëddoon ci lalu hôpital ci suuf ñu def fa ay jabar ay liggéey nee na nag mu daal di gis benn jigéen boo xam ne xam na ko ku baax waaw moom daal la gis ci gént gént ay njabar ak ay liggéey de ay muslaay yoo war a def ci sa bopp la ak jóg goo xam war nga koo jóg ci sa bopp uh, ci ci wàllu cangat ak ci takk ak ci naan ak yëpp incha allah loo xam ne war nga koo def nga gis nag koo xam ci wàllu googu tekkiwul ne moom moo ko def mooy yéen ñaar daal war ngeen a jóg ci seen bopp ki neen dafa gént ànd ak uh, magam nee na magam bi ma ngay dawal oto waaye ma ngay dawal dawal bu gaaw nee na mu ngi naan ko defal ndànk defal ndànk ba mu mbëkk benn miir waaye nag ba mu ko mbëkkee dara xewul kenn gaañuwul dara xewul mu continuer yoonam ba fa mu yem nee nag mu koy uh, mu koy tooñ di ko ree di ko mel ni ku koy ñaawal mu daal ne ko soo bàyyiwul li ngay def danaa la dóor nee na nag am ñu naan ko ah kii de xaw ma moo la mën ak yooyu noonu rek ci la continuer daal di koy song mu daal di koy song gént di dawal oto dawal bu gaaw de baax na yoonu réussite boo xam ne bu gaaw la waaye am na ay risque gént di dawal oto ba mbëkk miir it mooy Euh, euh, maanaam jafe-jafe boo xam ne da ko def ci sa dund bu fekkoon oto bi yàqu wala am ku ci gaañ wala am ku ci dee moom baaxul mooy gàllankoor la boo xam ne daal sa dund mën na cee jaare yàqu waaye comme continuer nga nag jafe-jafe la boo xam ne danga nga ko romb ci sa dund waaye teewul dund bi day continuer incha allah mu lay ñaawal ngeen di kaf agré kooku jàmm la joo xam ne dana am seen diggante yow ak sa frère rawatina nag ngeen songoo di xeex mooy njëriñ boo xam ne ku nekk dana ko am ci sa morom ki neen dafa gént gis papaam di waajal tukki mel ni kuy jëm France nee na nag waaye kenn ñëwul jël si ko te papa ji tamit génnul kër ga dem euh, gént kuy gis waajal waajal kuy tukki kooku baax na situation buy waaj a changé la bu dee kuy feebar ku feebar la mooy balaa yàgg dana wér bu dee ku am lu muy di lijjanti la dana sotti incha allah doonte sax jotu la tukki euh, situation boo xam ne dana changé la incha allah waaye nag bu demoon ci lay gën a gaaw keneen dafa gént gis benn oto bu mag a mag boo xam ne ay tubaab ñoo koy dawal waaw nee na ci gént gi moom ak benn xaritam nee na ñu mel ni dañoo mere tubaab yi nee na ci loolu am na daal loo xam ne yàq nañ ko ci ci oto bi ci gént gi gis nañ sàmmkatu nag nee na ñu ngay xool nag yi di ca di ca yéemu muy laaj loolu lu muy firi Euh, gént gis oto bu mag de baax na rawatina am ku koy dawal di ay tubaab loolu baax na waaye na ngeen dem yàq ci oto bi dara mooy yëfu jàmbur yoo xam ne dangeen ko yàq wala wërsëg bu ngeen waroon am boo xam ne da ngeen ko yàqal ci seen bopp seen bopp yéen ñaar ci seen jëfin dana firi lu ni mel ni ki noonu tamit gis ay nag ci gént baax na ay at yu neex la rawatina tamit sàmm boo xam ne day sàmm ay nag kon mun na firi lu ni mel kooku kon sa gént loolu lay firi bu ko defee kon loolu lañ jukki woon tey indi ko ci seen émission firi gént numéro 143 lu ci jub ci yàlla lu ci dëng ci ñu ko ñu ko doon waxtaanee suñ gàtt xam-xam ak ñàkk fasaaxa di leen wax ne kon firi gént noonu lay demee fii ci kii bi ak ci seen chaîne firi gént TV euh, di leen ñaan tamit ngeen gën a abonné gën a partagé euh, gën a tamit aimé vidéo yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu